gis nga xam feeñuwaay yi waa ji feeñ ci yow moo ko gën bàyyi ko xel xam maqaama yi fexe ba maqaama bi di nga koy ñàkk moo gën ci yow nit ki mën a dajale xam mboolem xeeti waxin su fiyanke yi waaye dund ko na ko fit dafay am yàgg naa la ko wax junni yoon maa koy répété muuma bi nga xam ne dafa am wërsëgu lekk ganaar añ ci reer ndékki étudiant bi nga xam ne xam moom ci mbiram ganaar la màcc jàng na adduna bi ba ñëw mbiram ganaar la jàng donc yi sax xam ne lu mu jëre ak der beeg yàpp weeg nen beeg cabinet yi lu ne jàng na ko ci ganaar waaye yàlla xatal wërsëgam foo na lay añee foo lay reere foo na lay ndékki waaye waxtu bu nekk nag mi ngi bind ci ganaar di wax ba ci defee rek nit ñi dem jëndi ganaar waaye su paree nag foo na lay reere moom bi nga moom mënta wax waaye soxna sang koy yàpp bu xëyee ndekkee ganaar su ngoonee mu reeree ganaar su bu añ ceeb ganaar lay añee waaye mënta wax nag mënta wax ci ganaar jàq xamu ci dara waaye mi ngi dund ganaar su ñoom ñaar borom xam ganaar bi ak muuma bi mënta wax ci ganaar tey dund ganaar bu leen futtee teg teg leen ci laboratoire bi xool seen yaram yi vitamine u ganaar du feeñ ci kat bi muuma bi mënta wax ci lay feeñ sëyur boobu laa bëgg mbokk taal ñu di ko bàyyi xel waaye xam xeeti maqaama yi xam turu maqaama yi bu ñu vérifié bu ñu vérifié sa xol bi yaa ngi xeeb jaami yàlla yi ku réew nga ne xamul yàlla diw maa ko gën diw matut diw nangam te mën ngaa régler maqaama ci sa làmmiñ ah dëgg-dëgg mbokki taalibe yi boobu yëkkatiwul yëkkatiwuloon Cheikh Ibrahima